ndax ku gàgg nga gàggantiku ku tiit nga dalal xelam ku jaaxle nga ñaanal ka waaye sa ñàkk feene de ni mu doon yiw ci nun xamuñu ko mu ne leen guddik ajuma gu ne fu jullit nekk loolu liggéey ku bokk sama xeet bi ku mu doon dinañ ma won sa carnet ne diw doomi diw ca dëkk sàngam bokk sa xeet bi moo liggéey lii yaa koy seede ëllëg ba ñépp a daj ñu bàyyi ba ma tëdd bu guddi ajuma ñu defaat loolu ku ma xool sa carnet nag fekk nga di góor ma ñaanal la yàlla ku ma xool sa carnet fekk nga nasax ma baalul la yàlla kon sama dund gi xiiwal la pour yéen sama dee gi xiiwal la pour yéen xaaj Malik woy na ko nee na tubbaanu axmaaluna yowma alxamiisu lahu wa yowma idnayni fi istixfaari fi jurami dinañuy wan ne bi tusuur sunu jëf ñu ngi ko koy wan ngoonuk alxames ak guddik altini bu ko defee mu xool ku ci nekk ku nafax ba mel ni man mu baalul la sa karne doo yëg ku nekk ku njaxlaf mu ñaanal la yàlla dolli la yiw moo tax boo demee ci ndax bari yu mu ngi wax ne wala yu juusu li muslimin an yujara aqaau maanaam aqa fawqa salasata ayaamin daganul ci benn jullit mu tongu moroomam jullitam lu ëpp ñetti fan boo ko déggee nag day mel ni tongoo benn bés aayul bon mu mel ni tongoo ñaari bés aayul mu mel ni daal tongoo bi ñetti fan lañ ko tere fekk jubluwul loolu axfal muddati la wax arab dañuy tëb rek bàyyi bu gàtt bi dem fa nga xam ne mooy limite bi kenn waru ko romb waaye benn minute rek waru la koo tongun teg sa mbokkam jullit waaye boo gisee mu ne bu mu passé ñetti fan mooy bu passé ñetti fan musibaam ndax courrier yaa ngi yéeg deux fois par semaine sunu courrier yaa ngi dem deux fois par semaine mu ngi dem guddi altine di dem guddi ajjuma te bu carnet yi ñëwee ñu jóor ko ci kanamu rasul carnet bu ne dina ko ubbi soo dee góor mu ñaanal la soo nasaxee soo dee góor mu ñaanal la soo nasaxee mu baalul la lu dul carnet ñaar ñuy tongo carnet ñaar ñuy tongo day am signe ci kaw su ko nee jëkk rek du ko xool da koy jalax mu dem te ku ne bi xoolul sa sa ku ne bi xoolul sa sa sa sa carnet ci jamono bii nga yóbbuwaale musiba foog nga yóbbuwaale musiba ñu ne nag comme da nga xuloog waa ji yéen a ngi xuloo samedi dimanche muy ñaari fan ëllëg la altine di ñetti fan ci la courrier bii dem juboo leen su ngeen jubóowul du ñu xool sa courrier wala nga xuloog moom talaata ba set di àllarba ba set di alxames ci ngoon la courrier bee dem boo juboowul duñ ko xool juboo leen loolu tax ñu tëb trois jours yi ñu tëb tudd ko ndax intervalle yi deux fois par semaine yi bu ci nekk deux jours la ak suur bi semaine bii dem soo ci continuer nag tongoo gi sa carnet duñ ko xool suñ ko xoolulee mu yéegaale musiba bu yéegaale musiba suñ la jéggalul mu jur ay duma moo tax mu ne warul ñuy tongoo lu ëpp ñetti fan waaye benn bés bi sax baaxul waaw kon inna salawatuka sakkanun lahum wallaahu yàlla samiun dégg na waxi jaam yi alimun xam ne seen jëfit allam yaalamu xam leen ne istixraar la anna allaha naka yàlla huwa moom yaqbalu dina nangu tawbata tuub an ibaadi min ibaadihi rek la day wane ne mën nañu remplaçante yàlla dinaa nangu tuubug jaam jaam bu tuub bu mu doon ma nangu sa tuub wa yaqusu dinaa fayit sadaqaati sarax bu jaam saraxe bu mu doon comme ku tuub ma nangul la ku saraxe ma fay la day ñaaxaate ñu góorgóorlu ci tuub ak di saraxe wa anna laa ngeen xamit ne yàlla wu moom ak tawaabu mooy ci bari nangu nangul jaamam ab tuubam ar rahimu mooy ki nga xam ne ku bari yërmande la waxul wax leen ne imaloo def leen lu leen neex tëkku la nag def leen lu leen neex ci lu baax def leen lu leen neex ci lu bon fa sa yaraa xel seet naa fay laaw yàlla amalukum seen jëf ku def lu baax dinañ la ko fay ku def lu bon dinañ la ko fay kon su ngeen yeboo def lu baax seen bopp bu ngeen yeboo def lu bon seen bopp lu mu yàgg-yàgg fa sa yaraa laaw amalukum wa rasuluhu wal muminuun bu ngeen dee ba dekk nag bu sa turadduuna def na delloo leen ginnaaw dekki jiital leen ba yóbbu leen ilaa aalimil xay bi ci buur bi xamoon li faddu wa saadati ak li teew fa yunabbi'ukum mu solool leen bi maa kuntum toyeg la ngeen nekkoon taamaluuna di liggéey ko ci àddina mu dem troisième kalan baa ngoog wa aqaruuna ñenn ña dey ñoom day marja'uuna baax na murja'uuna baax na mën ngaa def tikkante ci waaw gi rafaa ko mën nga tëkki mën ngaa teggi tikkante gi jafan ko murja'uuna ak murja'uuna ñu nga gu dëju waxuñu kenn dara di muñandiku nag li amrillahi ci ndigalal yàlla imaa ndigal li mën naa ñëw joxe yu'azzibuhum ñu seetaan leen ci ba ñu tuub ba ñu dee ñu bugal leen aw yëttooba wala mu xëy leen ñu tuub ci jébbalu mu baal leen walaaw yàlla alimun xam ne mi ne fi akimun aji dogal loolu ko neex ñett ñooñu mooy ku ñox murarat ibnu rabia ak ku ñox kaab ibnu malik ak ilaal ibnu umiyata ñoom ñett jàmbaar la ñu woon waaye demuñu oxod demuñu tabuk daf doon xare bu tiis bu metti wayaas wuy yàgg tudde nañ ko jëy sa azura sax am nañu ko tuddee xare bu xare bu wow kongo ba ndax àggoon nañ ci ñàkk matériel àggoon nañu ci ñàkk dund benn tàndarma fukk dina ko lekk ku jëkk ki dañ ko koy jox mu sex ko tàndarma ju wow lay doon ba mu yàgg ci gémmiñam ba yàbbi silëf mu yàbbi jox moroomam kooko doxal as lëf ba mu yàbbi ci gémmiñam ba saf mu jox moroom ma xoox rekk lay yàbbi tuddee woon nañ ko sax ashra jaysul ashira ci ñetti tomb ci siin gi fukki nit ñi ne ñoo bokkoon giléem bu kii waree quelques kilomètres jox ci mu war ñu jox ci mbooy mi met dafa naa ne nabi def na ko weer ak ñaar fukki fan muy juróom fukki guddi moo tax gaa yi bi ñu yeeyee seen bopp bàyyi nañ leen fi juróom fukki guddi kemtalaay yi li ñu def ci dëkk bi di noos nit ñu nekk ci àll bi di sonn yàlla dogal rasulullah ñu fekk ko ca foofale nettali ka jibril fekk ko fa ci ndigalal yàlla wax ko lii nu passé yépp plan bi gaa yi tëral ak ñàkk gi ñu ñàkk xeexi ak li xew gannaawam yépp ñu wax leen ko bii kalan ñëw wax nañu sax lu dul dëgg waaye na bi baalul na leen te enquêtul seen mbir yedd nañ ko ci bii kalan ñëw ñoom jaar ca jàkk ji yeew seen bopp ñi ci des nag di ñetti gaa yii mu di ku ñuy wax muraarat ibn rabii ak Kaab ibnu Malik ak Ilaal ibnu Umiya ñoom taxallafoo kasalan wa maylan ila daati laa nifaaqan wa lam yaxtasiru naafiq taxu leen a bañ a xeexi ñàkk arme taxu leen a bañ a xeexi dañ tayaloon rek a sonn toog waaye nag demuñu ci nabi wax seen bopp wax ko dara fa waqafa amruhum xamsiina lay ni yàlla ne patak ñoom juróom fukki fan door la na tont moo tax mu ne wa aqaroona benn groupe ba murjuuna ñu ngi muñandiku li amrillahi ci ndigalal yàlla man naa am mu bàyyi leen ñu bañ a tuub ba ñu dee mu buggal leen mooy imma yuazibahum wa imma yatuubu alayhim wallahu alimun akim yatuubu la ñu mujj def ñoom nag ñu bari woon ñoom nag ñett la ñu woon waaye seen jumla balaa ñoo dem ca atay sa daaxat bihimul ard yàlla dafa doxale ci diggante bi jumla joo xam ne ci naafiq lañu moom sax laaluñu ci mbiri xeex bi dara waaye dafa am leneen luñ doon doxal moom la ci atifan wa minhum bokk na ci naafiq yi la siina groupe ba nga xam ne ittaxisoo tabax nañu masjidan jàkk ñoom duus la ñu woon diraawan ngir jublu ci lor ëllu xubaa wa kufran ak ngir dimbale kéefër ak lan wa tafriqan ak ngir bëgg a séparer baynal muminina mbooloom jullit yi ba ñu di benn benn dañ demoon ci xubaa mooy booy dugg Madiinatul Munawwara tabax foofu benn jàkk keleen ka tabaxloo nag abi Aamir lañ koy wax arrahib benn waay la woon boo xam ne daal moo jur kat anselatu nga xam ne yëfi yàlla kenn xamu ko abi Aamir moom yéefar la ba dégg li ci alquran wax moo jur xale bi nga xam ne keroog ba mu dee malaaka yeek sang mu di jullit bëgg rasulillahi di xeex ba dee ci xot yàlla dogal gis nañu ne biñ koy rob daal ba ci ci moom mu ngi tooy xet te xamuñu fu mu jële ndox gisuñu woon it mu ànd ak ndox sunu borom it may na rasulillahi may na rasulillahi mi nga xam ne dara ump ko mu defal ko kasu mu mel ni seen groupe bi malaaka yuy yéeg mu laaj ne kii daal mbiram jaaxal na ma ndax ku dee ci jaar kenn waru ko sang te dañ ko sang ndox miñ ko sangi ñu ngi ko jëlee asanaan ay malaakaa ko sang si ñu ne nag guddi gi nga xam ne ci la ñu kiri oxóot guddi ajjuma la fekk mu àgg li séet keroog lañ ko may jabar mu tëdd ak moom keroog bi muy tëdd ak soxna si bay àgg rek ñu kériyee aux armes bu fi kenn yandu mu dali tëb rek gëm yàlla tax mu war te sanguwul janaba jàngam janaba jooju ñu reela ko nag moo tax malaak yi jóge asamaan yi juróom-ñaar ñëw di ko sang si di delluwaat ci kaw papaam nag ku bon la woon moom la ñu wax xaamir xaamir abu amir rahib bi lañ ko doon wax bàyyi amir ñi nga xam ne moo dàq jàng te di labbi waaye dañ ko mujj tuddee abu amir fashiq moom bi nabi ñëwee dafa giseek rasulillahi nit la woon koo xam ne dafa neutralisé nekkoon nasaraan mu gisanteeg rasulillahi ne ko yow daal diine ji liñ ci oote diine ji nga oote ne moom nga yor du du bokkul ak ji ngay doxal mu ne ko ah kañ man millata anifa laa yor abu amar ne ko man millata anifa laa yor te it li ma gis nga di ci def bokku ci nabi na ko yow yaa matalul li mu war mu ne nag nabi maag yow ku ci fen yal na ko yàlla alak rey ko fu sori rey ko ci doxandéem njol màkka ne amin comme moom móoluwul jëkkalu móolu tey gor lañu ku nekk nga ànd ak sa njaboot muy wax rek mu tëb nabi na ko yaa yokk diina ji mu ne ko yaa ko wàññi militaani fa xam naa ko ci laa nekk nabi na ko indi naa ko roy daay indi naa ko mu weex tal raxuma ci dara manqué wuma ci dara mu ne ko kon nag comme dañuy xëccoo te kilifa nga may kilifa yàlla mag kii ku ci fen yàlla na ko alag rey ko ci wéet rey ko muy ku ñu génne da daal di ko nag maa ngi laa yëgal nag lu ma la nëbbu amul kenn ama doole xeex ak yow waaye kenn du takk jëm ci coow te jàppale wu ma ku fi ñëw daal di xeex ak yow ne la wóor ne maa ngi moom a ànd borom sarxa bi ne na xaasilu salika ana aba amir xatara xatara habba dafa dafa labbu dafa labbewu woon ba mu ko defee fi jaahiliyyati wa labasal masfu'u wa tanassara falamma qaddima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam madinata bi nabi ñëwee xaala abu amir ne ko maa haza diinu la si ji'ta bihi diina ji nga indi jan la xaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ji'tu bil anifiyati diini ibrahima laa indi muy diina anifa abu amir ne ko fa annaha fa ana alayha man ci laa nekk xaalaloo nabi innaka lasta alayha nekkula ci xaala abu amir ne ko bàllee ci laa nekk walakinnaka yow mi ab xalta yaa ci dugal yaa dugal fi anifiyati ma laysa minha yaa ci dugal lu ci bokkul fa xaala nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko maa faaltu defuma loolu de walakin jiitu indi naa bihaa ci diine ga baydaa mu yeex tàll naqiya porop set rek abu amir ne ko am amata allahu alkaadib képp koo xam ne moo fen ci ñun ñaar yàlla na ko yàlla rey tariidan qariban wa iida nabi ne ko amin ñu tudde ko abu amir faasiq falamma kaana yawma uhud ba nga xamee ne uhud am na qaala abu amir faasiq li nabi mu ne yontu yàlla Muhammad du ma fekk kenn koo xam ne dina xeex ak yow te du maa ngi koy jàppale loolu na la wóor laa ajidu qawman yuqaatiluunaka illaa qaataltuka maahum fa lam yazal kadalika ila yawmi unayni ba mu gisee nag unayni jàpp na bi def fa loo xam ne kenn musu ko gis foogoon nañu mënu ko fa laman xasama ba nga xamee ne daw na awasaan awasaan ya isa la naagoo abu amir mu ne kii duma ko mënal dara fa xaraja xaariban ila saam mu daw nag dem saam fa arsala ila munafiqina mu oo ci groupam boobu yónnee leen ne leen maa ngi uti arma ci xaysar mulku ruum su ma ñëwee dinaa indi doole joo xam ne dinaa rey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye na ngeen préparé jënd fas lu ngeen man na ngeen préparé tëgg ngànnaay lu ngeen man tabaxal leen ma fi nag jenn jàkk ma dem te ñëw mu dem ruum fa ata bi jundin min ruum fa xaraja muhammad wa asabu fa banu masjid darar ila jën bi masjid quba ah mu daal gaay mu daal ne maa ngaa dem uti soldat daal di sant gaay yi gaay yi daal di tabax nag jenn jàkk sësk ci jàkk ji ne bi jëkk tax tabax fa lama faraqoo bi ñu àggalee min banaihi ca tabax ga ataw ñu fekk si rasulallahi woowa yete jaasu ila Tabuk fekk na ba ngi préparé juste pour dem ci attaquement bi ñu Tabuk fa qaalu ñu ne ko ya rasulallahi inna qad banayna masjidan dañu tabax jàkk waaye li si illatin borom feebar yee tax waa aajateeg borom aaji yi leeyatal matirati yi guddi kaw ñu mën caa yem wa inna nuhibu an taatina wa tuzallilana fii dañu bëggoon nga ñëw inigréel nu ko jullil nu ci wa nadon bi barakat nabi na leen inni ala janaa'i safar dama ne ci wayaas law qad bu ma ñibbisee insha allahu ataynaakum fa sallaynaa fiihi su ma ñëwee dinaa leen fekk su jullil leen ci falam ansarafa rasulullah min Tabuk ba nabi wëlbati ko Tabuk di ñibbisi nasala bi si awaan am na place bu yox si awaan mawdi'un xaribun min madinati place bu jege Medina la mu tekki fay noppaliku fa ataw munafiqoona gaa yi fekk ko fa wa saaluhu ñu ne ko an yaati masjidum ah ñu ngi lay fàtte lañ la santoon nga ñëw julli fa fa daa bi xamis yi nabi ne nañ ma yëb soo mbubb li yëlbisoo ngir bëgg koo sol dem wa yaatihim fa nasal hadillahi jibril dal di wàcc ay ji xamal ko nag ne ko jàkka ji dañ ko tabax ngir kontorlo dañ ko tabax pour pasaare jullit yi wàññi seen doole dañ ko tabax ngir nafiq kon bu fa dem mukk yàlla ne wa minum am na ci ñoom la siina gaa yoo xam ne beneen groupe ittaxisoo ñu nga defar ñu ngay tabax masjidan jàkk diraaran ngir saxal ak lor wa kufran ak feeñal ak kéefër wa tafriqan ak jéem a diminuer force baynal moomee diggante jullit ñi boo xamee ne téeméer daan julli ci jenn jàkk buñ ko defee ñaar léegi jàkk ju nekk ñaar fukk lay am wala fanweer wala juróom wa irsaadan ak di xaar nag li man ñeel ko nga xam ne dafa dem préparé ji ngir bëgg a xeex seeg diine yàlla ji xeex ak yonent bi li man arab allah wa rasuli min qablu jëkk a tabax jàkk ji la waxante woon ak nabi dem uti loolu looloo tax ñu tabax jàkk ji soo leen oole nag wala yàlla fun na dinañu giñ ne in aradna jublu ñu ci tabax gi ilal usnandare ngir noppal ñi am ngante ñu mën cee yem waaye wallaahu yàlla mi dara umpul yasalu xam na ne innahum naka ñoom la kaasibuna dañuy fen jubluwu ñu loolu de jàkk jooju nag bu ca dem laa taxum bul taxawal julli mukk fii ci jàkk jooju abadan abadan abadan bu fa dem la masjidun jàkk joo xam ne ashisha ñu ngi ko fondement ala taqwa mu ànd ak ragal yàlla ñu fondement ko min awali yawmin ci dëkk guddi ga nga jëkkee bés ba nga jëkkee yendu xubaa ci Medina jàkk jooju axàqu moo gën a yeyoo an taquma nga julli fii ci moom jàkk jooju nga xam ne keroog ba nga ñëwee Medinatul Munawwara la ko seen borom defar ñi ñëw di leen kontor ca jooja nga war a dem jàkk la joo xam ne fii nekk na ci biir jàkk ja di ci julli rijaalul ay gaay yu baax ñuy lansaar ñoom de yu ibboon a bëgg nañu an yatataaxaroo ñu ànd ak pop wallaahu yàlla yu ibbu dana fay almutaxarina ñi nga xam ne la lamboo nañu laab tey tey ngëneel dégg naa nag aay bi bi mu wàccee ne bi dem na laaj leen ne mooy yéen gan laab ngeen yor ba yàlla leen tagg ci alquran di wax seen laab jàkk joo xam ne gaa yu baax a fa ne gaa yu laab ñu ne ko nun daal li nu foog ne moom la dañu amoon ay dëkkandoo yoo xam ne yaxut lañu ñu gis bu ñu jóge waan ginnaaw kër bu ñuy dugg cabinet foog ñu yóbbuwaale ndox nu nit ñuy def na ñuy def ñu roy leen ne bi ne leen loolu sax sax la na ngeen ci sax googu laab la yàlla tagg sax leen ci yàllaa ngee laaj afaman waaja nga xam ne gaaya nga xam ne aussi sans fondement na bun yaana hoo tabax ak jàkkam ala taqwa ci ragal yàlla ala taqwa ci ragal mi na laay gu tukki ci yàlla wa ridwaanan ak yaakaar ngërëmal yàlla kooku laay laaj xayrun moo gën a mat a julli am wala ka nga xam ne asisa tabax na bun yaana hoo jàkkam ja ala safa jurufin ci tuñum kàmb goo xam ne heerin aji geweeku la fan xaaram mu geweeku bii ak jëmmam ji fineeri jaanama ku ci gën ci tabax ci suuf su wow koŋ dëgër suuf sa du bàyyeeku du geweeku ak ku fekk banqaleñ bu nooy mu tabaxam caax suuf sa di dund di geweeku ku ci gën le mu ngi fab istixaara bi def ko ci ndax suuf su dëgër si dënn bu gëm yàlla la ko tudde ak xol bu sell ci bokkaale suuf su nooy si mooy kiy tabax te jëmma ja gëmul yàlla xol ba sellul ci bokkaale yàlla nag di ko nirale ak suuf su nooy ak suuf su dëgër borom suuf su dëgër soosu nag na kekk nga xam ne dara du jëng maa ngi laaj taaxam ak taax ki nga xam ne suuf saa ngi dunde di rëm rëmi ku ci gën a dal xel xanaa kële wallaahu yàlla laa yaadi du fay mukk du jubal mukk ak xaw ma nit zaalimi na ñu di way tooñ jàkk jàngoog ñu ngoog fitna rek la leen di indil laa yazaalu du dañ mukk bunyaanahum seen tabax ga levi ga nga xam ne ba naw tabaxam nañ ko ribatan di leen jural sii ke sàkk fi quluubihim ci seen xol yi du ñu dañ mukk di jàkkaarloog jàkk ji di jax jaxal ci seen xel càncaay gi fu ñuy jaar bu mucc ci ak nañuy def ba mu sax loolu du tàggoog ñoom de ba kañ ilaan taqataa ba ñu dee ba daggat xuloo boom seen xol yi ci seen biir bàmmeel wallaahu yàlla alimul xam na aji xam la mbindeef yi akiimun aji àtte itam jaam yi la waaw waaw inna allaha buur bu ñuy wax yàlla astara wecceekoona wecceekoona min al muminina jële ca ñu ñuy wax jullit wecceekoona anfusahum seen bakkan ya waam waalug seen alel ya wecceekoona ko ci prix ñu ne xanaa prix ba dina rëy ñu ne jaay ak njënd foo ko dégg ñu wax ko mooy kay jënd la mu yor di ko jënde leew ko waaye comme li nga yor leew la ndax nit defarul boppam yàllaa ko defar su ne maa ko jënd kooku ci ngëneelam la waaye it mën na nekk ndax gaa yaa ngi wax ne àjjana prix bu seer la tey jëfi nit bariwul te ñaare la jënd moo war a ëpp waloor la mu jënd toujours la ñaare la jënd la nga joxe ba ñu jox la liñ la jaay la nga joxe ko war a gën a ëpp waloor ñu ne dëgg la waaye nag àjjana li muy foor foor dañ ko bind ngir nit te binduñu nit ngir àjjana kon nag fooraayam dàqu na foofu jël naa seen ruux jël naa seen aleel pour lu ma ca santaane mu ñu defal ma ko lu ma leen di jox mooy bi anna lahumul jannata ñeel na leen ay sardin yu ami néeg ami jongoma te du ñu màgget mukk du rak mukk yu xaatiloona maa ngi leen jënde yu xaatiloona ñu nangoo xeex fi sabilillahi ci yëkkati diine yàlla ji fa yaqtuluuna taaratan wa yuqtaluuna su ko defee léeg-léeg ñu songoo gañe léeg-léeg ñu gañe leen waaye du tere ñu résister rek wax dan dël la xaqan gu sax ali ci yàlla masdaraani mansuubaani bi fiilihuma almaxsuuf ñaari masdar la yoo xam ne li ka nasab fin la joo xam ne dañ ko asaf moo tax mu ne maa leen dig maa leen maa leen maa leen dig loolu waaduhu waadan wa xaquhu xaqa dig la boo xam ne bu sax la di dige boo xam ne du dàqu maa ko wax fi tawreet ndax seen xel dal yowat yi dugg ci diine ji soo demee ci tawreet mu nga ca injiil nasaraan yi ci bokk ci diine ji bu tuddul seen téere seen xel di dal mu nga ca wal qur'aane ak alquran muy nun maa ne ku di jullit jël naa sa ruux lu ma la ci def loo def ko jël naa sa capital lu ma la ci sant def ma ne maa ngi laaj wa man awfa ana kan a gën a matal minallaahi ci yàlla bi ehdi ci ndigim ci digim ku gën a mën a matal digge ci yàlla kenn kon fastabsiro bég leen iltifaatu la anil xaybati bi bàyyi akum ci seen jaayante gi la si ga nga xam ne baayantum jaayante ngeen bii ak moom wasaalika njaay moomu wasaalika njaay moomu waxuñu njënd moomu huwa moom alfawsu mooy taxe azimu nga daj mag loolu laa waxanteeg ñoom taayibuuna rufia ala almadi bi taqdiri muftada min ashirk wa nifaq juróom ñetti yëf la yàlla lim fii juróom yi yàllaa ko jël ñaar ñi nit ñee ko jël benn bi ñu bokkaat ko yàlla nee na taayibuuna benn aabiduuna ñaar aamiduuna ñett saahihuuna ñeent raakiuuna juróom saajiduuna juróom benn laamiruuna bil maaruf juróom ñaar juróom benn juróom ñaar kon laamiruuna bil maaruf wa nahawna anil munkari benn la juróom ñaar waa xaafisuuna li uduudillaahi muy juróom ñett juróom ñetti atte yooyu yàlla féete woon na juróom yi moo ko moom moom lañ koy defal yaar yi ci des noo koy defante nun ci sunu bopp benn bi ci des nag nu bokk ci kook moom ñu séq kook moom ñi nga xam ne ñoom laa jëndanteel ñooy ñii taayibuuna ay góor la ñu yoo xam ne ñu ngay tuub ci bokkaaleeg naafiq du ñu naafiq mukk du ñu bokkaale mukk tuub nag ay sartam mooy nadmu ala ma waqaa wal asmu ala adami al awd wal iqlaau wa radd al masalimi li ahliha moo di nga réccu ci la xasoon tabbi dogu na dootul amaat mukk dal di dal di quitté remplacé moyukaay yàlla ak mooy yàlla ci boppam jéem a delloo it borom àq yi seen àq loolu mooy taayibuuna gor yaa ngoog noonu la ñu mel la ñu defoon ci caay-caay ñu ngi koy réccu ñu ngi décidé ne dootuñu ko def ñu ngi taxaw temm ci ku ñu amee làq delloo ko benn melo xaabidoona ñoo di way sellal jaamu ga ngir seen borom ñu ngay torox loolu yàlla faale wu ñu xërëm ñaar xaamiduuna ñooy gaa yi nga xam ne ñu ngay sant ala kulli xaalin bu ñàkkee sant bu ñu tuubee sant bu ñu bu ñu bu ñu meree sant bu ñu wéree sant rasulillah yi nee na ci hadis awalu man yudaha ila aljannati yowma alqiyama ñi ñuy jëkk a rappel ne kaay leen dugg bés penc ladina yaamuduna la ala kulli xaalin fi sarayi wa darayi mooy ñi daan sant yàlla ci lu xew lu mu doon bu dee mbégte ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin bu dee naqar ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin bu dee wërsëg ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ne xajaante it lu mu doon rek ñu sant yàlla boo leen xamul asaayoona ñoo di gaa yi nga xam ne day niroog ñii di wër réew mi xama na ngeen leen tuddeeti borom koppar yu bari yooyu la di wër di wër te jëmuñu fenn tourisme tourisme amoon na bu jëkk waaye dañ ko daan def ngir mën a jaamu yàlla jamono bu